donc mu di docteur boo xamante ne bii mën nañu ne docteur waaye itam mën nañu ne nitu yàlla en même temps euh, ci wàllu ñaan bi nga xamante ne mi ngi koy def ak faj aajo tey moom la ñu am mbégte fekk ko fi nga xamante ne bii mooy cabinet Cheikh Babacar ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam. aouzu billaahi samil aliim mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma inni asaluka bi anna laka alhamdu laa yaa badii'u samaawaati wal ardi yaa zal karaam yaa xayyu أني أشهد أن أنت الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد أسألك الرحمة العافية اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه لين فايين وعساتما ديلين دلال ديلين أهلا وسهلا جرجفة آه، الشيخ بابا كرجو الشيخ بابا كرتاي نك يا كرناني في نوي آه، دوري سونو وقتان بكونا تي لي خامتيني بي بوكو نيكو نديك فصل سنغال دي تي muy lu yokk awra mu doon lu doy waar loo xamante ne bii bokk nga ci ñi ko njëkk di fësal fii ci réew mi ñi ko njëkk a révélé ñëpp di ci indi ay polémique yokk awra mën naa nekk mënul nekk impuissance sexuelle nga dem ba ñeme ci loolu osé ci souvent di ci wax lu bëri wàllu awra ci laay taxawoon gi ci ñu waxtaan ci lu yaatu tey jile émission bi euh, Cheikh Babacar Diop bokk na bokk nga ci ñi njëkk a dégg ci seen làmmiñ ñu wax yokk awra yokk awra dafa man a nekk. waaw fi may njëkkee sax du ma tontu question bi directement li ma njëkk a tontu dama naan. Hmm. lan may waral awra góor dellu. d'accord waaw li waral awra góor dellu ba mu war koo yokk. yaa ngi lay wax. Hmm. Hmm. Eh, nit ki bu fekkee dafa nekk góor. gis ne cëram dafa tuuti te normalement eh, warut mën a tuuti. dafay am ay. ay sabab lu koy waral benn lu mel ni ki nit bu nekkee xale euh, yaayam daaw ak solo tubéy si maanaam kii euh, ngemb di ko bàyyi muy raam ci suuf si uh-huh. am na gunóor yoo xam ne bu ñu màttee xale si ndaw da koy delloo day tax dootul màgg fi mu toll noonu lay toll d'accord waaw benn loolu benn la ci yi nga xam ne dana tax awra du màgg ñaareel ba nekkee xale. waaw. ñaareel ba nit ki su fekkee ne dafa mooy ñi nga xam ne dañ daan wër di ruxus awra awra awra awra góor yi. yooyu ñaareel bu ñu ko ruxusee ba pare bu ñu ko même bu ñu ko delloosee day tuuti dootul dootul rëy. yaa ngi dégg wax ji. ruxus awra. waaw ok. ñetteel bi rab rab bokk na ci. ñu bëri seen awra tuuti ñoom ñoom ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def noonu. rab mooy def noonu. waaw am na ñoo xam ne fi mu ne nii dañuy njëkk saa seen awra toll ni nu mu leen neexee toll nekk awra góor dëgg ñu njëkk saa mel ni dañ koo dañ koo loxos bu ñu xoolee duñu gis dara parce que rab mooy def yooyu mooy def caay-caay boobu yaa ngi dégg. ñeenteel ba euh, lu mel ni ki euh, impuissance sexuelle. Mhm. bu dalee góor day delloo awram ba mu nekk ba mu nekk ak xale nga xam day mel ni comme koo xam ne fukki at la am parfois sax awra ko am fukki at moo ëpp da koy delloo dugal ko ba ci biir ñeenteel bi juróomeel bi hémorroïde ku mu dal sa awra day delloo. d'accord waaw euh, Cheikh Babacar tey euh, euh, révélé nga lu bëri ne mooy indi awra bu gàtt hmm. mais ñu ñu gën a ràññee tey seen awra di dellu mooy ñi nga xamante ne dañu jëm mag hmm. souvent personne du troisième âge yi wala ñenn ñi nga xamante ne bi dañu xaw a obèse dañu am yaram. Hmm. seen awra di dellu. Hmm. Euh, lan mooy waral nit ki mu nekk ci digg ndawam xaj na di di mën a sëy awraam di baax mu dem ba benn jamono awraam di dellu wala dootul mën di mën. waaw xam nga boo xoolee maanaam loolu rek euh, li nga xam sànq mhm. biir wu rëy. Mhm. biir bu bëri graisse. daan dal la awra góor. nit ki tam bu demee ba magal. Hmm. su fekkee ne ndax dañuy wax ne euh, góor boo sampee ko da samp njaq. Hmm. njaq loo xam ne dana tax boo demee ba nekk mag loo magal magal magal doo tële parce que araw gàtt moom tële lay yóbbu nit. am ñoo xam ne seen awra fi ne bu jógoon sax du dépassé deux centimètres. Hmm. daanaka ni mu toll lay mel. bu ko defee yooyu fi mu dal euh, li ñu koy jox ñun day am loo xam dafa ci diw. ak loo xam daf koy naan bu defee su boolee muy diw ak li naan rek incha allah bu fekkee tam dafa àndax leneen waaye tam dina jox ne da nga koy suuroo ak bu fekkee ne rab la waaw fekkee rab la wala xala même xala sax koy def même takk xala day def day def day day delloo aw góor ba te dañu takk xala dafay def sekkat même bu fekkee ne nañ xala mën naa continuer léegi di di di di di tuuti. di tuuti di tuuti. alors kon gëm nga ni awra lu ñu mën a yokk la. Euh, hmm. contrairement ak seen sëriñ ñu koy weddi yi yow gëm nga ni awra dañ koy yokk parce que su ma nee gëm nga ni mooy par exemple yor nga ay produit yoo xamante ni yokk awra. fi ne man baaxee naa baaxee naa loo xam ne. mos naa ko baaxe nit ñi ci wàllu awra bu tuuti ñu ko jël ñëpp takk nañ ma xarit ci loolu loo xam ne dama ko waxoon rek kon ñu ngay weddi seen xam-xam moo toll foofu waaye xam-xam moom xaw ma bokk ci. da xam wala xamoo rek boo xamee nga jëfee ba xamul nga nga noppi lu mën a nekk la ndax fi mu li koy waral sax maanaam li yoo xam ne day day day xeetu xeetu maanaam lu luy dund loo xam ne greesam boo ci amee ñett ak ak ñeenti euh, garab boo leen boolee soo ko mu mu kii yokk awra góor d'accord am ñetti garab ñetti mala yoo xam ne seen graisse soo ko boolee mhm. ak ñeenti garab muy juróom-ñaar boo ko defee maanaam pomat mm-hmm. góor boo xam ne mu koy diw bi dina dina yokk dina dëgër mais sëñ Babacar ñaar tam mu mu mu nga yokk ko mu gudd te te dëgërul itam am na njariñ mm. waaw moo tax nag mu ne la da nga naan am looy diw te xam nga góor su fekkee ne sa awra dafa doole sëy mm-hmm. mën na ko bañ a attan bu ko defee moo maa li ngay naan ak li ngay diw ñooy ànd pour bu demee ba nga xam ne dépassé na fi mu nekkoon

mën nañoo ñëw ci lu koy waral lu bari. waaw conseil yi ma ciy joxe. dama wax ne nit bu fekkee dafa bëgg a dewaale hmm. ngóora. na moytu suukar su bëri euh, excitant bu bëri moo xam café la. Hmm. moo xam ataaya la moo xam cigarette la moo xam alcool la euh, ak yeneen excitant yi xam man xawma ko. Hmm. na moytandiku tam maanaam euh, masturbation. masturbation di fooyee waaw xale yu bëri dañ koy def bu dee ñuy masturbé du ko def fekk bàyyi ko rek mën na yóbbu mën na yóbbee tële ñu ngi yàggee def tam ba mu ënd leen tële itam faw ñu faju door nekkaat fi ñu nekkoon. faw ñu faju waaw euh, nit ki nga xam ne bëgg na dund ba màggee tëlu tële na def fu mu seeyee ba pare mu saw naan ndox ndox mu bëri ba pare def su seeyee ba pare lekk banaan dina ko dimbali. banaan waaw. waaw bu seeyee ba pare nekk banaan dina ko dimbali même bu fekkee ne tam dana def heure bu seeyee ba pare daal di jël rax wax su ut karité mhm. du ci awram loolu dana maintien dana tax mu am maintien ci e, nguuram am maintien ndax dafa mel ni oto tey boo ko yoree di dawal doo doo ci def ndox d'accord ah doo changer huile bu yàggee moteur bi day couler

waa xam nga euh, boo xoolee sax nit ñi. luy tax ñuy am yenn feebar yi nag nit ki bu mu juddee dafa judd ci euh, fitra maanaam judd sain. maanaam bu fekkee da juddu judd waale dara jotu la li lay feebar si environnement bi lay jógee. looy noy wala looy lekk walla nga sëy mu dal la feebar moom foofu lay jógee. bu dee li ngay lekk li tax muy mën di jur feebar mooy toxique bi. du toxique comme par exemple lekk bi nga xam ne am na engrais engrais engraissé ko ni muy def euh, kii bi légume bi yow bu ko lekk mën na def noonu wala loo xam ne dafa am bactérie nga lekk mu def feebar si yow wala soit di nga nooyi wala sëy koo xam ne dafa dafa am feebar nga jëlee fa feebar bi ñett yooyu li mooy transmettre ni feebar. waaw bu ko defee nag pour loolu ngay wax noonu yooyu nga xam ne dafa chimique. Mm-hmm. boo ko jëfandikoo ndax effet bi xam nga effet bu gaaw la. Mm-hmm. effet bu gaaw bu yàggee rek dafay rey lenn sa organisme wala da koy affaiblir moo tax lépp lu moo tax garab wolof feneen nii buy faj du tëb tëb rek ci saa si benn fan rek wéral la déedéet da nga koy jël mu def liggéeyam mu koy jël mu def liggéeyam am na diir bu muy àgg nag jeex na bu xasee jàpp rek man man man mën na ko ne ba keroog ngay dee loolu dootu ko fajooti bu ko la nag tey nit ki bëñam di mettre mu naan mu deñ wala boobu di naan mette mu naan calmant mu dem fi yooyu muy naan noonu da koy yooyu muy naan noonu gaaw bi muy gaaw ah, euh, bu yàggee rek day dem ba même boo ko naanee sax dootu la jëriñ dara hmm. waaw donc boo boo tàmmee ay comprimé par exemple. waaw loolu boo ko naanee dootu la jëriñ dara. fi nekk ki taamu comprimé di sëy. Hmm. Ah, benn bu dana dem ba bu naan comprimé bu nekk ko bu yàggee sax ak comprimé boobu dana dem ba bu ko naanee sax dootu ko jëriñ dara moo tax lu dangereux la nit ki ko di ko di ko jëfandikoo. dangereux la wàllu comprimé donc li ngay conseiller moy euh, euh ay garab yo xamné garab yu naturel la yo xamné bio la 100 mm. Serigne Babacar yooyu la yor Serigne Babacar Diop meun ñu xam façon garab ngor yi nga yore. waaw xam nga tay ki am diabète mm-hmm. tay garab yi koy jox wut am sucre d'accord. yaa ngi mm-hmm. ba paré garab yi koy jox tam war na ko dimbali ci diabète parce que diabète dafay cripté ngor a day comme télé boo xamné da nga waroon fay abonnement fayoo ko. yaa ngi dégg wax chaîne yi di ñëw que amul abonnement. jabet euh, waral sa kii fi nga ko fi mu koy fi nga capté mhm. am am envie balaa ngaa sëy sax mu demaat. day dugg di génn quoi day dugg di génn wala nga sëy lu mel ni garab bu ku liggéey lem. bu dee tam kenn ah, peut-être même sax da ciy joué âge âge bu nekk am na garab bu mu war a jël. waaw am na tey boo xam ne aajowul sax nga koy jox garabu ngóor jox ko garabu siddi rek mu nekkaat góor. Hmm? wala jox ko garabu émiré rek mu nekkaat góor. alors euh, sëñ Babacar li ñu wax souvent mooy yéen ñi nga xamante ne da ngeen di yëngu ci bio naturel da ngeen di bëri lu ngeen di critiquer garabu pharmaceutique yi. Euh, moo xam comprimé yi la wala euh, yi nga xamante ne bi dañ koy joxe produit chimique yi alors que yéen est-ce que am ngeen garab yu garab bu mel noonu par exemple sëñ Babacar Diop est-ce que am na garab bu mel noonu bu efficace ci saase boo xam ne kii tële ngóor a euh, toog sëyul bu ko ko joxee rek ci saase dafay sëy et puis dafay am kattan. ba mm-hmm. mel ni par exemple ku doon soog a def comprimé. Mm-hmm. waa xam nga euh, lépp loo gis mu am ci garabu tubaab am na si garabu olof. Mm. réaction nu muy nu muy doxee moo dul bokk. moo dul yaa ngi dégg wax ji. Mm-hmm. fi ne imaginer nañu koo xam ne toog na vingt ans sëyul. nga bëgg tey tey mu sëy mënul nekk. mënul nekk. waaw nga bëgg a jox dara ni léegi léegi mu sëy mënul mm-hmm. nekk da nga jox mu jël garab pendant trois jours ba une semaine aw kii nguuraam ñëwaat mu sëy. man ku yomb carrément. waaw ku kooku bu jëloon liy compromis si àdduna bi yëpp. pour ko jël mu ñëw. mais boo ko dafa am loo xam dafa logique. boo ko joxee bio garabu bio yi. boo ko joxee garab bio maanaam mu jël ko toute la journée lu gën a bëri bu ko jëlee toute la journée sax mën na sëy wala mu jël ko ñaari fan ñett sëy dafa am xeetu tële yoo xam ne fa mu àgg ah maanaam nekkul loo xam ne da ngay tëb tëb tëb rek indiwaat ko dafa am fooy jaar rek ba mu ñëwaat. alors bu ñu ñëwee ci nga xamante ne bi tëlewul mais impuissante la am dafa néew kàttan dafay gaaw a yegg dafay gaaw a yëg boppam par exemple parce que ñoom ne tëlewuñ si la war a dina jóg mais dañuy gaaw a yëg seen bopp kooku tam ndax traitement bi mën na mën na gaaw ci saa si parce que ñooñu lu gaaw la ñuy bëgg lu leen dolli. waaw hmm. ah, loolu euh, am na fi loo xam ne mbo mboolem ñu tële. Mm-hmm. ak tële bi lu mu mën di doon. moo xam dañuy gaaw a daanu ndax feebar feebar feebaru impuissance yi ñett la. Mm-hmm. ki nga xam ne day gaaw a daanu nga xam ne du mën femme femme une minute. Mm-hmm. am na ñoo xam ne sax wax éjaculation prématurée ñoom du ñu sax àgg si jigéen daal daanu am na ñoo xam ne éjaculation précoce la am une minute deux minutes daanu loolu itam xam nga feebar la. Ah, loolu itam garabam am na. am na koo xam ne du gaaw yëg boppam mais bu yëgee boppam mun na yàgg. mais pour mu yëg boppam. pour mu yëg boppam mooy problème bi loolu itam dañ koy faj. ak koo xam ne érection moom awaram dina ne lu dul dëgg day nooy su ne balaa buy sëy sax da koy jàpp noonu pour mun a dugg. ok te noonu la ci nekkee parfois sax mu nekk ci lëx lëx lëx lëx daal daal daal daanu. te ba du jóg. te ba tey du jóg loolu tam feebar la. feebar la waaw. defee yooyu yëpp ak yeneen yeneen yoo xam ne xeetu feebar la feebar góor mais yëpp yëpp rek xam nga boo bëggee bu ci nekk nga détaillé ko kii boo mën nañu mais benn feebar rek mën nañu ko jël. di ci leeral pendant une heure eh, de temps. d' accord mais li waral loolu mooy par exemple yow ya, nga spécialisé ya, wu wala eh, tey dañu la xam carrément eh, ci wàllu kattan nga ciy def liggéey bu am solo à travers le monde yoo yor ci ay produits yoo xamante ni je pense que tey ak suma caméraman dinañu wane produits yi yëpp yëpp yi nga xamante ne ñaari am nga ko ci wàllu ngóor nga ci def liggéey bu am solo donc bu ñu ñëwee si yow di waxtaan ñu ngi taxaw ci ngor bu baax a baax parce que pàcc la bu askan wi teewoo aussi euh, yow dafay baax en tant que docteur nga leeralal lu bari donc loolu moo tax euh, tey ñu des ci ñu des ci waxtaan boobu parce que ki am ki am jafe-jafe xaj na moom su la su jox ko waaye ak yow moo xam problème bi mu lay expliquer euh, di nga ko di ko di ko mën a proposer garab bi gën mais pour ñu xam lan la ñu lan la ñu war a mën actuellement nii pour a pour gën a sàmm waaw li bëgg a sàmm nguuram li muy moytu na moytu di seere. seere waaw na fexe daal ba bëri di lekk ay fruits yoo xam ne dana tax du seere. Mm-hmm. na fexe tam ba euh, nay xiif door a lekk. xiif lekk. waaw bañ lekk parce que ne di góor bu fekkee dafa bëgg lekk bi biiram fees guddi mu bëgg a sëy parfois mën na leen problème reer yenn yenn yenn yenn itam boo ko reeree. lu mel ne ne reer ceeb wala kii ay ñamu suukar dana téye góor ba du kii nekk dëggantaan li mu war a doon. lan lañ war a lu mel ni dugub wala cere. lu mel ni cere xam nga lu mel ni dibi. te dibi tam boo koy lekk nga lekk lekk bu dëgër daal. lu mel ni ay petits pois ñebbe nangam la yooyu noonu bañ a lekk lekk bu feebul si góor góor da am na góor yu bari loo xam ne kii euh, malnutrition lakk lekk bu baaxul. moo tax mënuñu sëy moo

dañuy ci leneen vite fait muy wàllu am doom hmm. une infertilité parce que loolu tam ça entre dans le cadre ki nga xamante ne bi mënul am doom moo xam ko góor ki la wala ku jigéen ki waaw ñàkk am doom bu dee euh, même impuissance impuissance dana dem espérance ba ba am nga xam ne li leen ba ñu impuissant nekkul ci site, mais ci ndox bi la bu ko kooku ndoxam bu normal rek benn dootul am érection bu dëgër ba pare dootul mën am doom il faut mu traité wu espérant doon normal mu mën a am doom mën nekkaat góor 100 pour cent lu mel ni varicocèle tam bu ko góor amee dina koy def dina tax du mën am doom lu mel ni azoospermie lu mel ni hémorroïde bu yàgg ah même diabète da koy def bu ko defee yooyu yëpp nit bu ko dalee mënul am doom ñu dina xam ne diw nangam ak nangam moo koy traité allah. d' accord c' est parce que da ngay traité waale diabète en même temps. waaw diabète dañ koy traité waaw dañ koy ci garab yoo xamante ne baax na ci trop sànq ci ginnaaw maa la ko doon wax. ne la su eh, eh, ko jëlee rek. daf koy daan dindi définitivement incha allah. définitivement mhm. alors bu fekkee eh, ni ci wàllu ku jigéen parce que am doom mën na nekk ci ku góor ki ak ku jigéen ki ku jigéen ki su fekkee moom moo feebar par contre. waaw bu dee ku jigéen ki tam li koy waral lu mel ni. fibro hmm? mu ne fibro am na ñoo ko opéré mais dafa yàq seen butu njurukaay. loolu moom bu ku mu dal mun ñu ko am am nga fibrom mën nañu jox garab ba mu deñ lu mel ni ki comme trompe yu bouché. loolu fu mu dal mën nañu jox garab mu deñ lu mel ni comme kyste ovarienne mën nañu jox garab mu deñ ak yooyu. d'accord waaw infection tam bu dee ci góor ak jigéen ñi fu mu dal tam dafay tax doo am doom. d' je pense que foofu la ñuy euh, euh, tëjee euh, jataay bi xanaa ñu bàyyi la nga am ay conseils yoo joxe par rapport ak sa ay produits ñi nga xamante ne bi moom la nit ñi jëfandi jëfandikoo. Mm-hmm. à travers diaspora aussi ak nit ñi nga xamante ne bi ñoo koy jëfandikoo Sénégal tey yan pro yan yan conseils ngay ngay jox say patients. waaw damay wax ne ki lay faj nga nga nga jëflante ak moom. war na am ci yow maanaam nga koy informer sa feebar fu mu toll bu ko defee moo lay orienté ci conseil moytuwul lii dafa lii nangam nangam loolu de am solo mais am na ñu bëri ñoo xam ne ñoom seen aaju fajoo rek pare nañ ci bu ñu la woowati te euh, kenn ku si nekk si li ngay yëngu ña ngi siy ñoo ñooy say. seen mbokk seen mbokk. Mm-hmm. daal la ñuy jox comme conseil. wax waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëfati euh, mbokk yi teewlu émission Kemtaan ñu ngi dalaloon Serigne kër Diop moom itam numéro téléphone yaa ngi ñoo di affiché si bas baa l'écran euh, émission bi nag yi tax ñu teg ko spécialement ci wàllu góor ak kattan mooy que ni. mom bokku na ci ñi nga xamanteni ne bi njëkk nañu fësal yenn feebar yi ci góor ba diko traiter euh, pendant des années donc ñu xam leen ci loolu diko jaajeufal bu baaxa baaxa baax a di jaajëfal ñu jox mi nekkon ci cadrage bi di leen jox dig daje incha allah beneen jotaay. Alhamdoulilah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.